mbokk jër jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu sunu borom ak kàttanam di leen nuyu di leen gërëm di jégalu ñëpp ci 30 minutes chrono semaine bi passé amul woon jeu jeudi passé kenn mënu woon déplacé wu génn wala dara moo taxoon ñu doon xaar rek mbir gën na tekk mais yéen a ngi suivre ci solution TV ak solution info TV. di ñu seetaan bu baax a baax teg ci aussi ab soj yi soj bi Euh, baat bi boo leen xoolee fan yi xaw na changé parce que aussi euh, situation dëkk bi la mais ñi ngi sant yàlla bu baax euh, di nuyu Sanjogu son yu bu El Hadj Modou ab Top Ablaye Souka Aïcha ma jigéen ak Assane ak ñëpp ñoo xam ne ñi ngi xëy ci solution TV di leen nuyu nag di am naqar di am euh, tiis di mettitlu li xew ci réew mi ndaxte seize morts ci diiru ko ñetti fan loolu il faut que mu doon lu ñuy lijjanti ak lu ñuy wax mais aussi mu doon loo xam ne dañ ciy bàyyi xel parce que man jamono jit naan diw moo wax lii diw moo def lii diw moo yàqule lii nit ki lu mu ñàkk mën na ko amaat même bu dee ay milliards nit bu dee ni liberté la ñàkk mën na ko amaat ndaxte ginnaaw jàpp boo gis bàyyi moo ci tegu bu dee nit ku gaañu du ñàkk mu jële ci laagu mais wala fi dañ looy nettali jig na la mais li jar bàyyi xel mooy seize morts Sénégal ñu xëy ñàkk seen bakkan ak anam yeen ko ñàkkee ku ne di ci indi ay kàddu naan ay force occulte ay mercenaires ay milice privée ku ne di ci am sa interprétation léegi nag loolu mu war a doon loo xam ne dañu koy lijjanti te buñ sañoon duñ ci egg parce que bu doon ni mbiri Adji Sarr Ousmane Sonko ca njëlbeen dégluwoon woon nan ñu doon wax naan procès bi amul dara accusation yi amul dara viol amul waaye tamit lii di menace de mort amul pourtant ñi ko doon wax bari nan mën naa ci lim Pape Alé Niang mi lim ci Cheikh Bara Ndiaye lim ci Ahmed dara lim ci keneen ak keneen bari nag ñoo xam ne tey jii billaay wallaay dunu militant Pastef waaye seen aqulaay taala ba ci ay capitaine Touré Ndeye Khady Ndiaye ak ca lan doon wax mën na am jamono yooyu bu leen déglu woon réew mi du egg fii bu leen déglu réew mi egg fii man daan naa wax ci jamono ni mbir mi montagne glace la montagne glace montagne glace mooy lan mooy heure bu ñu xëyee glace bi di seey day seey ba jeex ba glace du amati mais dama jàppoon ni le Pape Alé doon wax naan fen du bejjaaw te loolu lépp li ñu ko mayoon mooy mën a jàng waaye te mën a xam parce que même sunu diine dañu wax lenn bu ñu waxee ci jullit loo xam ne rawatina ci wàllu njaaloo fekkewoo ko weddi ko ba bis bi ngay gis dëgg bi kon ñun sunu diine sax danoo santoon ñu jox la présomption d'innocence kii di Ousmane Sonko beneen bi ci tegu li olof naan ki nga xam wala nga xàmmee ko ku koo xamul war lu wax ci moom loo xam ne xamoo ko woon ci moom kon ñun bul xamul Adji Sarr xamuñu Sidi Mouhamed mbay ñoom ñu xëy am lu ñu waxal jëmee ko ci Ousmane Sonko te Ousmane Sonko dem fi élection présidentielle deux mille dix mosuñu ko dégg ci yooyu ñun suñu njort day jàpp ni. ñooñu lu wax amul ba ñuy prouver le contraire tey jii ñiy dem di dem ba ne viol amul waaye tamit euh, lii di menace de mort amul kon tey jii képp koo xam ne yaa ngi doon jàppale Adji Sarr ci xeexam tey ji da nga waroon taxaw jéggalu sénégalais yi da taxaw jéggalu sénégalais yi baalu leen ak wax leen ni ñun de xale bi danoo nax ñun de xale bi danoo jàppoon ni li mu wax dëgg la waaye dem nañ ba jamono wan nañu Adji Sarr mi la mu waxoon amul ñoom ñu taxaw maanaam devant les sénégalais d'accord ci loolu léegi lu tax nag des fois ngay xaw a yéemu bu dee yàlla dafa dogal ay journalistes yoo xam ne ñi ngi doon jàppale Adji Sarr wala boog buñ ko jàppalewul jàppoon ni li muy wax lu am la jàppoon ni yoon dafa war a def liggéeyam ba tax mars deux mille vingt et ak deux mille trois deux mille euh, ak juin deux mille vingt ñoom ñëpp plateau bu nu mës a toog moom lañuy ñuy waxtaanee ba wax ji daanu maanaam mbir Adji Sarr Ousmane Sonko bokkoon nañ ci ñi ko doon gën a wax demoon na ba sénégalais yi naan mbir mi danoo soof bëggatul sax ku ci wax ndax ginnaaw ba ay audio génnee ginnaaw ba Adji Sarr di wax waxeet ginnaaw ba daal heure boo xëyee rek am liy weddi aji Sarr. pour pourtant ñoom à chaque fois ñi ngi doon xam taal bi pour que ñuy wax ci mbiri Adji Sarr ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu mësaan a dem sax ci assemblée nationale di yëkkati kàddu wala ay nitam di wax wala muy dem ci campagne di wër réew mi pour naqaral ko pour dagg xolam débat boobu sax ñi ko doon xas ak di ko xaxar bu waxee ñu ne Adji Sarr Adji Sarr Adji Sarr ñu dem ba jëmmi jamono yàlla jox dëgg Ousmane Sonko ci ni violé wul mais aussi. menacé wul kenn de mort tey jii journaliste yooyu doon xamu taal bi boo toogee ci débat di wax lu débat bi gudd gudd boo bëggee dugg foofu ñu ne dépassé nañ ko <laughs> dépassé nañ ko duñ ci waxati kon verdict bi moo leen arrangé wul loolu tax ma naan verdict gu Adji Sarr ak Ousmane Sonko verdict nakate du vérité du vérité danoo xawanduroo verdict du vérité pour pourquoi ñoom naratu bëgguñu ku ci wax wala ku ñu invité jàpp ni yaa ngi défendre Ousmane Sonko bëggatunu ngay dugg ca boobu les débat léegi nag li wala fi naan daa am foo xam ne ku fa langaamu langaamu ci xobu taf mooy li jëm ci corruption de la jeunesse mais Adji Sarr mais représenté wul la jeunesse sénégalaise mais bu nee jeunesse mais jeunesse Sénégal est-ce que bëgg nañ ku mel ne aji Sarr représenté leen ba tax ñu ne corruption de la jeunesse jël image yu aji Sarr ñun tegal ñu pour bëgg ci daan Ousmane Sonko deux ans yoo xam ne da koy tëdd ci kaso bi te na violé wul mais aussi deful menace de mort comme li nga ko doon jiiñ te balaa àtte bi am na ñu doon wax naan procureur bu ci dugalee loolu dafa bëgg ni bu dee ni viol amul wala. menace de mort ñu jël yoon woowu dugal ci Ousmane Sonko man maa ngi fàttaliku bi juge Maham Diallo doyen des juges jëlee dossier bi ma am kàddu yu ma ci waxoon def ci chronique di ñaan Maham Diallo ci bisu 31 décembre man dama ko doon ñaan naan ko ngalawaay dossier bi bu ko renvoyé chambre criminelle parce que yii yëpp ñun dañ ko njortoon. mais malheureusement fi Serigne Saliou Gueye doon gisee wala benn Cheikh Baara ba tax mu sonn ci dossier bi te billaay amuñu ci dara liñ ci ñàkk mu ëpp sax liñ ci gagné ndaxte dossier boobu tey jii moo leen poussé ñu nekk ci loxoy yoon dossier boobu moo yóbbu Pape Alé Niang yoon moo yóbbu Pape Ndiaye yoon mais man dama jàpp ni dossier Adji Sarr ak Ousmane Sonko fiñ ci mujj tey jii ba ne Ousmane Sonko violé mais aussi deful menace de mort képp koo xam ne dossier bi moo taxoon ñu teg la loxo pour man dal la war a bàyyi parce que bu doon ni danoo dëggal ni son ko dafa violé wala mu def menace de mort li ñu koy jiñ dëgg la ñu indi ci ay preuve ca tribunal billaahi wallahi dama jàpp ni kuñ ci tëj dagan na ndax danga daan danga doon farak koo xam ne nekkul ci dëgg mais li xew lépp ak fi mu daanu tey jii mooy wane ni papp Ndiaye dañ ko war a bàyyi Bassirou Diomaye Faye dañ ko war a bàyyi Cheikh baare Ndiaye dañ ko war a bàyyi mu ñibbi këram mbiri Cheikh Baara dinaa ci dikk ci kanam mais Serigne Saliou Gueye dañ ko war a bàyyi keneen ak keneen dañ ko war a bàyyi képp koo xam ne yow sa nekkin ci loxoy yoon dossier bi moo tax ne jarutul nu lay atte ndax dossier bi atte na boppam mooy aji Sarr la mu doon tuumaal Ousmane Sonko du dëgg tey jii bu nekkoon ci réew moo xam ne yoon a ngi dox normalement kon li aji avocat Sonko yi waxoon pour man danoo war a dem ci logique boobu mooy Adji Sarr ñu porté ko plainte yóbbu ko ci yoon wax ni ji la mu doon jiñe fan la ko teg ak lan la ci bëggoon ak lan la ci jublu parce que tamit trente morts mënuñu am deux mille vingt et ak tey jii rek àll nara na sendaw président nee na dina ci enquête mais enquête su deux mille vingt bi ba tey jii ak commission ba xamuñu fu mu egg tey jii seize morts waxaguñu fan lañ jëm ak 16 yi tey bu ne enquête bu doon ni 2021 ibbi nañ enquête ba mu jur ay résultats bu ñu diggee lii dinañ ko gëm mais tey jii li ñuy dig est-ce que mën nañ ci doon parce que lan ñu njëkkoon a dig defuñu ko tey bu ñu diggee leneen fan lañ ci jëm ñu indi la ay forces occultes mercenaires lu ne ñu indil la ko ci réew moo xam ne tey jii man li ma doon wax naan Sénégal waratuñ ko yor ci xol mais dañ ko war a yor ci xel. jeunesse bi génnoon ñu ne dafa am ñoo xam ne dëkkuñu ci réew mi da leen jëlee feneen indi leen fi yooyu yëpp ay wax la mais man wax ju ma amul preuve man du ma ci sori parce que ba tey jii wanagul la kenn ni nationalité bii la ak bee wala réew mi la jóge wala bi muy ñëw ci réew mi nii la jaar xanaa nag réew mi ñàkkul kaaraange kaaraange xam nit day jóge réew mi ay ngànnaay dugg ci réew mi ñëw di faat waa réew mi bis bu eggee ci niveau boobu ñun ñëpp war nañ tiit looloo tax ñu war a ab enquête enquête bi nag warul doon gaawantu mais lii tey xel sum ñun mooy moment bi ne ay nit faatu nan ñu war ko leeral mais aussi wax ñu lu dugg ci nopp réseau sociaux yi ñu tëj ko tëj Walfadjri léegi jël yeneen médias yi comme si ñu def ko médias yoo xam ne tey jii du ñàkk ni la liggéey moo leen arrangé moo tax ñu ne nañ fay jaarale suñuy xibaar ministre yëpp di fa jaarale seen kàddu ñëpp di fa jaarale seen kàddu liñ bëgg a gëmloo nit ñi moom lañ bëgguñu gëm ko mais li ma laa naan verdict du vérité yow sañ nga wax li nga gëm mais est-ce que lu wax nga li nga gëm mais est-ce que ñi lay déglu da laa war a gëm y'a problème parce que ni nga koy waxee ak ni nga koy def parce que aussi yàlla suñu borom même bi muy yebal sax suñu yonent yi wala bokk bi muy yónnee ay message borom xel li la doon waxal mais tey jii ñiy wax tamit nagam yàlla moo ne sax borom xel yi lay waxal mais ñiy wax nan xam na borom xel yi aussi tamit la ñuy waxal police génn na politiciens yi génn nan ministre yi génn nan ku ne génn nan mais wax taxul biir fees wax rek nii nii taxul biir fees daf ci am loo xam ne dafa war a am rigueur mooy ñu def enquête càmbar ko xool lan mu indi lii lépp mars deux mille vingt et un ñaata nit lan fi yàqal ñan waxoon dal leen di dédommagé est-ce que dédommagé na leen. ñan waxoon dal leen di dàmp est-ce que dàmp lan enquête ya la mu jur kan lañ jàpp ban force occulte la ñu jàppal ci réew mi ban rebelle la ñu jàppal ci réew mi ban mercenaire la ñu jàppal nga feebar pour nga faj ko da ngay nangu ni da feebar di nga sunu dëkk bi lu mooy mbiri Adji Sarr ak Ousmane Sonko ak xale yi génn ñiy farak Sonko ñi seen problème tax leen a génn ñii raaxaloo ci di def naka sudul noonu maanaam ñi gàmm ak ñi dem dun benn man parce que am na ci yoo xam ne ay mbiri bandi la ay mbiri sàcc la ay mbiri yàq alalu jàmbur mais li naan une foule ne réfléchit pas mbooloo du xalaat maanaam tey jii làmb day am ba jeex mais ñu gis ñoo xam ne bu làmb ja jeexee ci lañuy profité di sàcc ak di rey nit ñi ak di agressé nit ñi nawetaan la même chose politique meeting yi am ci campagne yi la même chose fu mbooloo daje buñ paree dina ci gis yoo xam ne xamuñu ko woon mais loolu ñi ñu dénk suñu kaaraange ak yoonu réew mi ñoo war a topp loolu ba xam ñan la mais bu ñuy xool aussi buñ xool rek ci côté opposition parce que dafa am loo xam ne takk der yi man dama leen ci ñaan mooy ñoom bu ñu dugg ci jeu politicien yi buñ ci dugg parce que policiers yi ñoom ñooy dernière ah, maanaam takk der ñooy dernier rempart ñoom buñ demee ba lépp jaxasoo ñoom ñoo ñu war a delloo siwaat kon ñooñu jeu wu Benno F24 jeu wu ñii di waa Pastef ñoom waruñu dugg ci yooyu wala ay yeewi askan ñoom danoo war a sori loolu def jàngat càmbar mais aussi tamit li leen di jiiñ ñu fexe ba raxas ci seen der parce que tubaab daf ne qui s'excuse s'accuse kon ñoom li leen di ñaan mooy lan leen xamee woon parce que man dama leen a naw de mais nag dafa am benn kilifa boo xam ne ñaari at ci ginnaaw dama mës dégg mu wax ñaar ci Sénégal mu ne ñaar yooyu nan ko maytu mooy bi ci jiitu mooy Sénégal dafa am ay kenn yu ko téye woon kenn yooyu. tey Sénégal bokk na ci justice bi bokk na ci administration bi mais bokk na ci armee bi mais boo xoolee tey administration bi est-ce que wóolu na leen comme nu leen wëree woon ci Abdou Diouf parce que boobu administration bu dëgër lañ amoon justice bi yàgg na deme nii justice atte ñëpp duñ ci ànd mais am na ci loo xam ne. daaw ñu fa egg ci ñàkk wóolu yoon mais buñ demee ba armée bi ñu wóolu man nag ñooñu pour man ñooy dernier rempart bi bu administration bi jàngee ñu ne juge bi dafa jàng wala leneen ak leneen mais pour man ñooñu ñooñu war a dimbali mooy téye réew mi téye réew mi yamale ñëpp mais aussi jox ñu assurance parce que xamul tax damay waxtaan ak benn kilifa démb Moodu mu wax mu wax bu am solo mu ne yàlla bu guerre am Sénégal mu ne ñiy ñaan guerre di ñaan fitna ñun trois jours rek réew mi sëngeem dara demul dara dikkul banques yi tëj tabaski bi ñuy waajal mais commerce bi tëj dem ak dikk bi tëj internet bi xam ne économique économie numérique àdduna bi foofu la jëm bu bloqué ko réew mi yëpp na teg ci ñetti fan ci loo xam ne 16 moo dee moo am ay blessé am ñu ci yàqal loolu nag. war a doon loo xam ne lu lu jar a bàyyi xel la maanaam ñett fan lan attoonul Covid bi jaar na fi mars mille vingt et un jaar na kon ñun xaju xajuñu ci fitna ak ay ay ñun xajuñu ci de part loolu tax may ñaan waa F24 liñ jàpp le 9 ak le 10 ñu bàyyi ko parce que nag bi taw kenn du fobeere parce que nag liñ jot a ñàkk ci diggante bi dafa yàgg aussi liñ jot a ñàkk dafa yàgg aussi mais le président de la république aussi warul xaar ba dialogue bi di jeex. pour muy dogg wax pour man noppeem gënul dafa war a wax warul xaar dialogue bi di jeex mais dafa war a wax waa F24 liñ jàpp nañ ko bàyyi actuellement nag li dee bari na li gaañu bari li ci kaso bi bari na mbir mi nag toog waxtaanee ko ñi ci war a dox dox ci ndax am na ñu ciy dox paraît-il am na ñu ciy dox léegi nag dox boobu ñuy dox aussi tamit ñu respecter les droits de Ousmane Sonko. nekkul en résidence surveillée gisuñu benn kayit bu ne na ko yóbbu ci yoon wala ci prison la ne mais Ousmane ko def mel ne prison la nekk ci biir këram aussi loolu tamit nañ ci wax barricade këram kaaraange ga fa ne mais aussi ñu wàññi ko ñi ko war a seet seet ko ñi war a dem di dem fa parce que paraît-il que am na ñu fay dem di def médiation ak mais xaw ma ci dara mais du ñàkk. du ñàkk am ñuy dox ci diggante bi kon ni Macky demee Touba ñu ne Sonko mi ngi waajal mais aussi ay droit wu Sonko ñu respecté ko la fait ñu tëj ko nii aussi tamit lool day énerve ay militants parce que il faut que ñu may la possibilité Ousmane Sonko ak Macky sàll ñoom ñaar ku ne mën a wax mais ñëg bi jaru ko ñëg bi ñoom ñaar damay sentir ni ñëg jaru ko mais il faut parler. mais en première la président de la république sénégalaise ñun fal ñu Ousmane Sonko ñu bëri da dégg ñu la pourquoi doo leen critiquer Ousmane Sonko man leen Ousmane Sonko man du sam président faluma ko te falagul ci réew bi maire Ziguinchor la man amul mu ko yeddee parce que sama destinée nekkul ci loxoom fii ba 2024 Macky Sall mooy président Sénégal kon tey ji bu ñuy laaj ay compte kenn Macky Sall la nga koy laaj bu dee laaj ay explication sénégalais Macky la nga koy laaj tey loolu tax xale yi ci internet bi def deuil national pour après une semaine lu baax la mais président moo ci waroon a jiitu te xam ne dafa jaboote ñëpp ndaxte ñi faatu ñëpp ak ñi gaañu njabootam lan même buñ àndul ak moom parce que en 2019 bi président Macky Sall falo man jàpp naa ni discours yi Macky Sall mës a def yëpp boobu moo ci gën mooy dafa falu toog ne 57 pour cent yi ma fal ak 42 pour cent yi ma falu yëpp maay seen président woo naa ñëpp président ji nga ñi la fal ak ñi la falu yëpp yaay seen président tu es le père de la nation loolu yaa ko war a xam ñu naan la gëmmal dóor xippil dóor non du noonu président xale yi yaa leen jur yërëm leen yërmande la ñuy xaar ci yow mais aussi nga wan ñu nu yaay suñu kilifa parce que kilifa da am lu mu lay ëppalee aussi tey jii Ousmane Sonko mais ñi nekk prison sax xanaa ñoo ko tane quelque part par ki nekk prison sa avocat mën na dem gis la mais man information loolu mosuma ko gëm. ñu ne ay avocat Ousmane Sonko mënuñu egg kër Ousmane Sonko maanaam loolu mun ma xalaat te pourtant nit day nekk kaso ay avocat dem seeti ko waxtaan ak moom kon nan ko delloo ay droit am jéem a waxtaanee réew mi mais aussi nu maytu comme li ma sama benn grand gendarme musa wax moom dem na mission yu bari parce que man mos naa nekk ak gendarme mënuma Omar. est-ce que xam nga ni guerre danay egg ci niveau boo xam ne ci dëkk ji nga militaires yi xeex ak askanu yeegu di den dem ba bis bu mara di taal yàlla bu mu am Sénégal civil yi pour ñu lekk dañuy dem ci camp yi di lekk camp camp yi pour ñu lekk dañuy dem ci kaa yi di lekk moo tax ñiy gàtt nga fitna ci Sénégal xamuñu li ñuy gànn wala amuñu expérience wala waxtaanuñu ak nitu sécurité yi kon mara di taal yàlla buñ ci egg léegi nag moom ñëw ci mbiri Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Baara ñun nit duñu wax ci Cheikh Baara loo xam ne ñun xamuñu ko ci moom li ma doon wax sànq bi may ibbi rek mooy li ñu xam ci nit du ma xam du ma ko xam ba pare ku ku ko xamul ñëw di ma wax ci moom loo xam ne dama ko war a gëm Cheikh Baara day yee fitna Cheikh Baara dafa lii Cheikh Baara mais Cheikh Baara du bu dee dañ ko jàpp Cheikh Baara yàgg nañ ko rëbb Cheikh Baara ñaata yoon lan ko artu ñaata yoon la ay nit di bind ci internet bi naan ko dina la jàpp ñaata yoon te loolu depuis comme yi wax wal fajri Cheikh Bara mi ngi koy dund loolu nag ku jël événement yi lié ko ak arrestation wu Cheikh Bara da ngaa juum mën na am nag dañ ko doon rëbb ba ci waxtu wi ñu xëytee ko mais li ñuy ñaan mooy ñu bàyyi ko parce que Cheikh Bara du nitu fitna te daf ci am loo xam ne tey jii même bu ko Cheikh Bara bëggoon a def. mais Cheikh Bara demul moom kenn ay nitam dañ ko koy ay xanaa nag ñi wër Cheikh Bara ñàkkuñu fayda ak mata di ko toll ni yëg yëg ni Cheikh Bara mu ngi dugg nag suñu noonu ñu ko ci dugal te Cheikh Bara ëppale na loolu boppam koo xam ne këram amul gardien Cheikh Bara amul arme Cheikh Bara yorul ngànnaay Cheikh Bara boo duggee otoom yorul dara parce que li mu doon invité mooy bis ñu ñëw fekk mu yor ngànnaay ñu naan Cheikh Bara day doxantu ak ay ngànnaay ak ay nitam que yooyu yenn ñu jiñ ko nit mais fexe na ba maytu loolu lu bari. Cheikh Bara depuis quelque temps Cheikh Bara bari na fu mu doon dem dematu fa pour maytu yenni ay bërëb yoo xam ne nit ku ne mën na fa dem di bërëbu lekkukaay am na benn bërëbu lekkukaay bu mu doon dem nit a dajeeg moom na ko fii bu fi ñëw ci guddi nit ñi da lay gars yi ñu ngi lay rëbb Cheikh Bara ba mu xamee ni ñu ngi koy topp yàgg na pourtant mi ngi maytu. Cheikh Bara ñu ne ay xale yu mu doon jëflante mais Cheikh baara boo ñëwee ñaata nit la Cheikh Bara jëflanteel ci àddina ñaata nit ci koo xam ne générosité am foo ko natt weesu na ko bu mësaana rek pare émission fii ay nit dañ koy xaar ci bunt bi yenn saa yi mu joxe ba ne ma aal ma man ko Cheikh Bara àbb di maye amul wenn reetaan ko na ko ñu dem loolu Cheikh Bara dund na ko ak ay nit buntu Walfadjri bi dem naa ba ne ko Cheikh Bara kilifa nga waratoo pare émission di taxaw buntu Walfadjri di waxtaan ndaxte daf ci am ma ne ko ji nga tërukat teggikat moo ko mën daf ci am loo xam ne waratoo ko maye. loolu tax bu naan ma Cheikh Bara dugg na ci lii ak lee pour man dañ ko doon ut jàpp ni c'est le moment pour ñu téye ko mais Cheikh Bara boo ko téye après koo xam ne nitu jàmm la Cheikh tey dialogue bi li mu ci dox wax ko. pourtant bari na ñi nekk ci opposition am ñu ci woon ak moom Cheikh Bara bi mu naan mag Sonko dafa war a wuy ji mais loolu ñaata nit ñoo ci àndul ak moom mais loolu moo doon position am loolu la gëm Cheikh Bara bi muy toog fii di jox crédibilité Omar maaxam Diallo ñi gëmoon maaxam bariwul ci réew mi parce que dafa jàppoon ni Omar Maham Diallo liggéeyam lay def Cheikh Bara ñaata peut-être politique moo ko dab. politique moo dab Cheikh baara ci analyse mais Cheikh Bara bi muy njëkk di commencé saa njóogu nu may seede lan la waxoon ci mbiri Thione Seck lan la waxoon ci alin May Nder mais loolu lépp ñu dem ba jamono di ko ci jox dëgg suñu borom di barkeel kàddoom ba lu mu wax bu ñu xëyee gis ko Cheikh baara wax na fi wax ci mbëri Adji Sarr ak son ko un an après nit ñi jëlaat wax ji di ko tegaat balaa lii Cheikh Bara ay génneel nañ ko fi ay audio ban ko delee yéen a ngi fàttali audio yi. di ko rëbb lu ne ñu dugg ci Cheikh Bara bari na lu mu dund du ko wax Cheikh Bara ku jàpp ni benn nit la boo xam ne tey jii dafa ñëw di jàppale Ousmane Sonko di xeex nga Cheikh Bara am na tudd tudd biir këram am ñu nekk ci pouvoir bi ñëw ci tudd ba ñëw ci tudd ba ñu naan Cheikh Bara doon jëflanteeg lii la mu doon lii lu wala lee xaw ma lan moo nekk ci dossier bi ak lan lañ koy topp parce que ñu ngi ci enquête enquête bi jeexagul man du ma ci dugg mais ñun liñ xam ci moom moom la ñuy wax koo xam ne day jël basang lal buntu këram toog nit ñi di ko fa fekk léegi nag bu dee koo xam ne tey dañ ko jox xaalis man tey mun nga ñëw ñaan ma di dix mille francs ma may la ko mais di mille francs boobu di mille francs boobu man lañ cay def la nga cay def ak la cay def bi man dama ko lijjanti. koo xam ne bis boo lu mu deedee bis bu ne di nga toog ak téeméeri nit mais téeméeri nit yooyu ñooy ñan ak fan lañ jóge am na ñu bokk ci pouvoir am na ñu bokk ci opposition am na sax ñu am intention bu ban contre yow nee na ak Cheikh Bara yow xàmmewoo sa noon mun la mun a may jamono àdduna amul solo ñaata yoon Cheikh Bara bu doon alal la ko tax a jug wala leneen ak leneen ñaata yoon la ko ay nit di démarché pour que. mën na am loo xam ne bu ko nangu woon moom Cheikh Bara mun na am loo xam ne bu ko nangu woon tey jii du ko fekk ci yoon bu ko nangu woon tey jii du ko fekk ci yoon mais constance am ak principe am ak taxawaayam Cheikh Bara am na live bi mu doon def Walfadjri tey dinaa leen wax lu tax Cheikh baara live bi mu doon def ak Issa mu arrêté ko parce que da doon def direct mais ay nit ne ko toog ci YouTube bi di def direct ay centaine de personne di la suivre Cheikh Bara wóorul parce que jamono yooyu ci leen attaqué dàmbooj ci ci la jël décision wax nga dëgg guddi gi pare ay une ci laay boo xam ne direct la war a ñibbi wóorul parce que loolu lépp pour sàmmoon kaaraangeem la Cheikh Bara ñaata yoon lañ ñëw këram bëgg di ko indil problème mii bës di bës di bës ba mbir mi sedd ci pro yo ci mbir yoo xam ne moom yoonam nekku ci kon yàgg nañ ko ut kon tey jii ku jël li xew di ko lié ak mbiri Cheikh Bara xamoo li ngay wax Cheikh Bara Ndiaye waxuma la bu dee kàddu ñu naan moo wax lii moo wax lee Cheikh Bara deux mi ngi wax Cheikh Bara bu doon ay wax rek mooy tax ñu koy woo woon bu yàgg Cheikh Bara lu mu fi waxul ci fajum cosaan amul mais wax li wax loo xam ne nit da koy dindi loolu amul ci mbiri Cheikh Bara maanaam wax loo xam ne nit da koy dindi amu ci Cheikh Bara ki Antoine Félix Diome ak Ismaïla Madior fal bi seen waajur génnee àddina Cheikh Bara dafa ñëw toog ci télé bi toog ci tele bi laa la wax jaale leen masawu leen pour wax leen ni nitu kase la fi li gars yi foog ci Cheikh baara amul li ko gars yi foog amul jàpp ni koo xam ne dafa ñëw pour daaneel nguur dafa ñëw pour yëngal nguur dafa ñëw pour yëngal réew mi Cheikh Bara deux yi ak ni ko ñi ngi koy bàyyi xel Cheikh baara daa am loo xam ne dooful sax ba di ci tugg dooful sax ba di ci lii loolu tax bu nit ñi naan Cheikh Bara lii wala lee peut-être ñi ko xamul ñoom ñooy wax loolu ci Cheikh Bara loolu da Cheikh baara li ñuy ñaan man damay ñaan Cheikh Bara kilifa la te boo xoolee ba bak tey rek taxawaay bi ci ginnaawam war na tax ñu bàyyi ko mu dem ñibbi ci njabootam ñu te Cheikh Bara bu defoon naka sudul noonu ñun duñ toog fii di ko défendre mais gëm naa ni Cheikh baara ci dëgg rek la ne Cheikh baara ci jubal rek la ne Cheikh baara Sénégal moo ko gënal boppam te li nekk waajaloon na ko waajaloon na ko art nañ ko ci ba sonn mais aussi munoo rek di maytu na maytu na maytu na mais bu demee ba ay nit di joxoñ naan bu ñu jàppee diw diw moo ci tegu bu ñu jàppee diw diw moo ci tegu te jàpp bi Sénégal lu tax mu commencé di compliqué ci nga boo yàggee jàpp bis dina ñëw nit da def dara nga jàpp ko sax nit ñi du dañuy jàpp ni deful dara parce que jàpp moo bari ñun dañ leen di ñaan nan bàyyi Cheikh Bara njaay mu ñibbiwaat ci njabootam bàyyi Cheikh Bara mu waat ci njabootam loolu la ñuy ñaan di ñaan jàmm ci réew mi jéggalu ñëpp nag di baalu ak ñëpp wax ne sénégalais soxla nañ ko njabootam soxla na ko. teg ci alxamis bi ne dañoo baal mu muudu alxamis bi ne ci la réew mi doon yëngatu ñu arrêté wal fajri jour boom ñu bari dina foog ni pajum cosaan Cheikh Baara day ñëw mais pajum cosaan Cheikh Baara du woon sax ñëw jeudi boobu parce que dimanche la ñu taal otoom ñu ngi ci enquête bi man bokk naa ci ne ko Cheikh Baara noppil ba enquête bi jeex ngay doog a ñëwaat toog ci média di wax taal sa oto xamoo lu xew ñi ci war a def enquête ñu ngi ko ci def mais déglul. yooyu yëpp li li nañ ko parce que comme si danoo sentiroon ni am na lu ñuy waajal dimanche bi ñu taalee oto am dimanche ba ca topp lañ ñëw na ko coppet yóbbu moom Cheikh Bara Ndiaye nañ ko bàyyi di jégalu ñëpp di balu ak ñëpp di wax ni rek jàmm moo gën la ma kilifa ga waxoon guerre baaxul fitna baaxul ab réew kenn du ko taal mun ma takk der yi di jaamaarloog ñii di civil yi mu na bu ñu demoon ba egg benn niveau yi takk der yi ñooy dem ut lekk di jox civil yi te yàlla bu ñu egg foofu kon ñun ñëpp benn lañu di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal Cheikh Bara mu génn Serigne Saliou Guèye Pape Ndiaye Walf Fadjri aussi tey ñu indiwaat signal bi ndaxte askan wi soxla nañ ko di fàttali ni waawal fii ëllëg incha allah woote nañ ab sitting ginnaaw tisbaar gi julli wal Walf am na jumaa ngir ñëpp teew ngir ñu amal sitting boo xam ne du ñàkk buñ ca jógee wala balaa ñu tey egg signal bi ñëwaat ci TNT ak canal ak YouTube bi mbokk yi kon jërë ngeen jëf wéy leen di seetaan solution TV ak solution info TV.